ñun ñëpp di kontaan si mobilisation bi xam naa ni wax ju neex parce que fii kenn du déglu ñu déglu tuuti ñu déglu tuuti ngi nuyu waa Guy salaan di tàmbali di nuyu le président Dos Santos ñoo am mbégte ñëw fii fekk si leen fii si guy salaat di leen wax ni waxtu bi moo ñu dab waaye incha allahu dinañ fi dellu si waat gën a waxtaan waxtaan ak yéen saafonteek yéen li ngeen wax dëgg la y a des frustrations gëj nañ fi incha allah si biir campagne bi dinañu ànd ak Dos Santos ñëw fii waxtaan ak yéen seen i projet surtout yéen jigéen ñi te li ñu war a def dinañ ko def bu neexee yàlla. may nuyu handicapés yi fi nekk yaa l'association des handicapés qui est là ma leen di nuyu di leen ziar di nuyu imaamu gox bi yëpp kilifa gox bi yëpp di leen jox seen wàccuwaay li ma leen di ñaan nag comme waxtu bi daf ñu dab ñun ñëpp ñëpp laa wax waa Guy Saranax waa Médina ñi fi nekk ñëpp ngeen jug ngeen may ma loolu ñu ànd dem centenaire si biir semaine prochaine naa fi dellu siwaat ñu dugg suñu biir ruq waxtaan lépp lu leen war a defal ñu defal leen jërë ngeen jëf